suñu digg ak Serigne kon lépp luy defar yoon itam war nañ caa wax lépp lu ko yàq war nañ caa wax yor dante Sénégal di citoyen bokk ci réew mi kon lépp lu yàq réew war nañ caa wax waaye lu koy defar war nañ caa wax liy jóg nag day loo xam day yàq diine di yàq réew mi mm-hmm. te ki ko def tudd macaron macaron nag daa daa dañ ko xare ci macaron macaron jooju wala xëy na moo tax muy def pexe yii mm-hmm. ngir yàq dine waaye mënu ko ndax leeru yàlla neexut a fay ci ci sa ci sa gémmi ma ci mën nooru wala wakale kaaf wala wakale kaaf la kon nag ñu ngi koy naqarlu fa naqarlu yem mbooloo mi mën ko wote mu fes del waaye jiru ko góor du wét góor du wét déedéet góor piir du wét surtout mu di julli yaakaar Sëñ Tuubaa kon war sa wet waaye su doon te wetu naa itam ma wetli koo gis sëñ si di mi ci wet damay rafet njort dalum xel ndax suñu naari waajur ñoo àndoon diirum ñaar fukki at ak lu jiitu kii yor diine ji ki yor adduna ji ak di fay ak lépp lu yàq moo tax mu tekki mu tekki tànkam kon su ñëwee fii damay rafet njort ak xel mu dal ci ni lii nuy fexe pexe mii fexe du antu incha allah alhamdulilah rafet naa ci njort nag kon nag wax ji duggul xam naa li li li li ñu ci yokk rek yoon wi daa tënku ci kilifa sëñ Muntaxa mooy suñu kilifa ñun ñëpp waaye lu ñaaw kenn du ko àgg kilifa caricature bi ñu def yonte bi kenn wul kilifa audio yi ngay dégg di ko wax sëriñ bi kenn waru ko kenn waru ko kenn kenn waru ko àgg sëriñ mu tax ndax fi mu toll ci at ak ni mu gëmee sëriñ Tuubaa ak ni mu fonkee diine ku ko wax mën na koo yóbbee lor joo xam ne dara jël ko ci àdduna nag mooy sunu kilifa di sunu mag te joxoon ndigal ci lii moo tax koy wutu ci lépp kon ñoo ko wutu ci lii ndax moo ko waroon def te mënu ko waaye nun mën nañ ko moom lañ ko defal kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah bokk yi ni seetaan fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñoo ngi leen di nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaka di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mbooleem naal yi nga xam ne naalal na ko lislaam yëpp mu àggale ko ànd ko ak mbooleem njabootu sëriñ Touba gi yëpp ak mbooleem kilifa diine yëpp di leen ziyaara bu baax di jéggulu ci kàddu yi ñu yëkkati ci kanam kilifa yu baax yi ñu nekk muy Serigne Hamsatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne Sidi Mbakke moom Cheikh Xaadir waaye Serigne Bachiru Mbakke moom Serigne Cheikh Thioro ci jataay bu solo bii nga xam ne dégg ngeen ni ko Serigne Fallou Galas ubbee liy sabab bi di lenn rek muy jëf yu ñaaw yoo xam ne dañ koo jëmee ci sangub sang yi di Moustapha sallallahu alayhi wa moomu nga xam ne moo taxoon Serigne Touba jël léppam jeexal ko ci moom moo waraloon ay guddeem ak i bëccëgam lépp mu jeexal ko ci moom jëloon dundam géppit jeexal ko ci di sant boroomam waaye di ko liggéeyal moom kooku yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag bu ay kaddu jëmee ca moom walay jëf sëriñ bi day bañ ku ko jege ak ku ko laal looloo taxoon léppam mu jaay ko jox ko ko mu sallallahu alayhi wa ba muy wax ne samay kër gent na sama njaboot tàggoo nañ li ma ko yóbbee mooy tàgg ko moom sallallahu alayhi wa te li tax ma di ko taggit mooy bëgg ko rek kon defe naa moom rek daana taxaw di yëkkati aw turam daana taxaw di ko kañ daana taxaw di ko tagg ba jël léppam jox ko desewul dara jumlatu maali wal midaad wal qalam hadiyatun lil Mustafa baabi naam kon amul dara lu muy desal yonent bi la jël teg ko ci kaw ñëpp wane ni it moo féete ñëpp kaw ci biir ay mbindam ak i waxam sëriñ bi nag dafa am lu mu ci leeral loo xam ne day wane ne euh, kilifaam gu sell googu gu tedd googu di Mustafa sallallahu alayhi wa da ko jotale woon tey jii bakkanam ak njabootam ak léppam ki nga xam ne egg na ci wax ne dammi wa ahli wa awlaadi fidaun lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada kon day mel ni tey luy ñoŋal mbiram joxe na ca bakkanam mu jaral ko ko waaye jaral na ko joxe ak njabootam jaral na koy joxe dara tam ndax moom ci boppam eggal na boppam ba wax ne dammi fidaun li xuruji dammihi wa maradi fidaun li daa i jasadi yonent bi salaa sallam bu daratam waroon a wal joxe naa sama deret man Serigne Touba mu wal waaye bu waroon a tawatit man maa koy woppal kon loolu wonee na fam ci toll ci moom ak jox ki mu ko jox boppam ci lépp jox ko dayoo bu egg ci wax ne du ma làngandoo moom mukk mu taxaw may taxaw baa mu taxaw may toog wala mu toog ma di ko tiim waaye bu nu doon làng maa ngi moom bu ma ko séenee mu taxaw sama lex ci loolu ndëggu dàll yàllaa koy def xaddi jaxaltuhu turaaba naalihi yaa laytani laxidani bi fadlihi fonk googu ma ko fonkit moo tax mu wax ne bu ma àndoon ak moom di dox moom sallallahu alayhi wa sallama ba mu ne jëyi ab tànkam jëmee ko ci ak dég wala jiit war koo fet wala jaan war koo mat nee na du ma dandal dégg damay daw rek jël sama lex dëpp ko ca kaw dégg rasulullahi jogge ca beneen lex ba jàll kon na kooku xaddil wiqaayatu rijil mujjataba min shawkatin wa ma yudaha aqraba kon loolu day wane fa tegoon yonente bi sallallahu alayhi wa moom la defoon wettalam ci léppam moom la defoon lépp moom la ba nga xam ne amul dara nit dana bëgg alal wala nga bëgg dara sëñ Tuubaa nag moom bi man bi xob bihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xeyla fàtte woon na lépp ngir rasul la am na ci mag ñi ku ko doon tagg koo xam ne ba mu koy leeral dane ko sa xol bii de lépp faru na ci du doom du dara te ko far mooy bëgg Mustafa sallallahu alayhi wa sallam adaaba xalbuka xobbul xibbi yaa sanada fa xobba xibbika yamxu xobbakal walada loolu kenn ci mag ñu baax ñi ko toppoon moo ko doon leeral lool sëriñ bi nag dafa am fu mu bi sallallahu alayhi wa mu nu ci ñaari baat rek loo xam ne wane woon na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kat amul kenn koo xam ne mel na ni moom wala nuuru na ko dafa wax ne muhammadun zaharat jaharan siyaadatuhu mu ne yonent bi sallallahu ak sangoom ak jiitoom ak kaweem dafa leer nañ li kulli xalqin zuhuru shamsi wal xamar ne ab jant ne fang leer bañ ku ko gis xam ne jant la ku gis weer xam ne lii weer la nee na noonu la ngëneelu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñe mu ne nag kon fan la nit di sikki sàkka ci ne yonente bi salaahu salaam mooy ki kawe adduna bi yëpp te féete leen kaw mu ne mooy ki nga xam ne it ki koy natt ci kenn mooy dof bi gën a gàtt am xel Sëñ Tuubaa nee na bu ñu la doon laajloo ab dof nee na seetal ki nga xam ne day natt kenn ci yonente bi alayhi salaatu salaam jàpp ne moom la nuróol mu ne billaahi lam yaati walaysa yaati misla ibn abdullahi til ayati giñ naa ci yàlla ne mësta ñëw te du ñëw ku mel ni rasulullahi salaahu salaam wallahi lam yaati walaysa yaati xalqu ko misla sayidi saadaati giñ naa ci yàlla ne mës la ñëw sang bu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag day wane rek fi mu ko teg ci aw melo ak sopp gi mu ko sopp mu waxit ne man shakka fi taqdimihi fa jaahilun wa xaafilun wa jaahilun wa wa zaahilun képp koo xam ne sikk sàkk gi rasulullah jiitu ba kawee ñëpp fa jaahilun da ngaa réer waaye da ngaa sàggan waaye da alku waaye da yàqu man shakka fii kaw ibn abdallahi muhammadin nuru wala fallaahi ku sikk sàkk ne rasulullahi gi mooy leeru bindee fi nee na kooku ab dof rek la man laa yara ahmadana xayra wara foofu sax fa su shaqa in qalbuhuma nuwira nee na képp koo xam ne gisul jiitu rasulullahi salaahu nekk gën gi mbindeef nee na ab xolam xol bu lëndëm la bu alku la kon nag Serigne Touba fii la tegoon kilifaam gi te kenn ku ne ci noonu ku laaloon Serigne bi mu jaral la sa bakkan jaral la sa alal ndax ni mu def rasulullahi rek lañ ko kon nag kilifaam moom la ñëpp moom lañ laal te kilifa ak Serigne Touba mooy kilifa ak ñëpp ndax moom la yoroon yàlla jiital ndax borom bi subhaanahu wa taala dafa waxoon ne yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal nit ñi buñ bëggee ma bëgg leen nañ la topp rek kon bëggeelu rasulullah yi gën ko topp gën koy topp mooy bëggeelu yàlla ci noonu kon nag képp koo xam ne ab jullit nga lii naqare na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na woon képp ku gis lu la naqari na ko saafaraa ci ñett mooy benn boo ko mënee wax na nga ko wax moo tax du def nii boo ko mënee jëf na nga ko moo tax ña mën a jëf te bàyyi seeni alal di ko def ña a jëf ca di ko xeex di ko def boo ko mënut amuloo kattan gi sa kaddu mënut a jàllit mu naqar loola ci sa biirub xol ñett yooyu la rasulullahi waxoon noonu nag boole nañ ñett yëpp mooy naqare nañu ñu di ko wax ngir sëriñ bi naqare nañu luñ ca mën ci jëf di ko def naqare nañu ñu fas ko ci boole ñaan ak di ko naqarul loolu sëriñ bi a koy wax ñëpp ñu di ko bàyyi xel xam ne rasulullahi daal mooy kenn gu mag mooy mbaar mi moom la ñu laal képp ku lib julli di wax ashhadu an la ilaha illallah rawatina ci weeram wi nga xam ne fu ne ña ngi ko fay tàntal ña ngay communiqué ku ne ngay woote naan mawlidu nabi nañ xam ne kooku lañ jam tey kooku lañ laal jullit bu nekk am na lu ko ca war mu jóge ko ci taxaw ko ci ndax bu nu xooloon ne badar ña ko doon joxe booba dara taxawut ñu joxe seeni i deret tey ci la seen i ci la ñoo moo doon wal ci lislaam ci seen i dara la taxawee te kuréel bu néew la woon te tey jii xéewal gi nu wet gu ne barkeb rasulullahi moom la ko ko waral kon nag rasulullahi la ñu laal te ab saay-saay bu taxawee laal sa kilifa da nga koy won ne ko ki nga laal waroo ko laal te mooy sayyidil xalq loolu moo nuy may jàmmi tey may na ko jàmmi ëllëg nag ndax intiqaamul ilahi dana far dana waral di dal ci mbirum laal koog yàlla te mooy rasulullahi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu alhamdulilahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin yi ginnaaw bu nu santee borom bi subhanahu wa taala julli ci ndawam la Moustapha ngi dellu di yeesal sunu jaayante ci Maulana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu jataayu tey bii nag jataayu naqarlu la ginnaaw bu nu jiitalee ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy kilifa ak murid yëpp di nuyu sunu kilifa gu baax gi sëriñ satu Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad feggoog mbokkam mu baax mii di sunu sëriñ di Cheikh Sidil Mokhtar moom seex Abdoul Khadir Mbàkke radiyallahu taala anhu li nu dajale fiiru dara lu dul gis ngeen ci image yi ak réseaux sociaux yi ŋàññ gi nga xam ne France ak jiite ñu ngi koy ŋàññ ki yàlla jiital ci àdduna gënal ko ci lépp min noorihi kullu noorin saatihin bi sana nooru nujum wa nooru samsi wal xamari kooku nga xam ne lépp luy dox ci dara jaam ak barkeem ak màggaayam ca lay dox moom la France di caricaturé di ko sabooti di ko yéj te moom moo waxoon ne sama saxaaba yi bu leen leen yëjji yonent bi bu waxee ne bu kenn ŋàññi samay saxaaba kon moom nuñ ko war a def Musaylamatul Kazzab ma ko doon diir mbagg di ko wax lu bon ba ko sëñ Tubaa di raddu dafa dal ci kawam dalin woo xam ne mooy lii nuy def tey zalla muzaylamatu na jaara man fi samaai wal ardi laa yu jaara zillata man wastal wala taqawata wa baala huryaanan wa jahran darata zalla muzaylamatu ayna jaara musaylamatu torox na toroxtaane goo xam ne man fi samaai wal ardi laa yu jaara dafa diir mbagg koo xam ne asamaan ak suuf moroomam nekku ci Macron dafa diir mbagg koo xam ne asamaan ak suuf moroomam nekku ci muy rasulullahi sallallahu alayhi wa man fi samaay wal ardi la yu jaara zillata man wastal zillata man wastal mala taqawata wa baala huryaanan wa jahran darata dafa dem ba ci digg mbooloo ma moom mu say lamatu sëñ tubaay bind de ne mu def mu simmi fa yaramam def yaramu neen ba ne dung ba na ko ndeyam jure woon ngelawal ba ñëpp dégg ko ngelawal xam ngeen li ma leen di wax sëñ tubaay wax de ngelawal ba ñëpp dégg ko mu dem fa àll sëñ ma bànji njaay jël loxoom teg ci gémmiñam ne ko mbàkke ndeke sa xalima dana bind lu mel nii mu ne ko ko xamul sama war may sang ba doo xam sama war may xalima kooku mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne laa yuminu ahadakum hatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmaina kenn ci yéen du gëm li feeg dama ko gënal ndayam gënal ko baayam sañ tubaa ne juttu lool yow ma bi ruuhi wal badan wa waladi wa jotoo naa la sëñ Mor Anta Sali jotoo naa la Soxna Jaara jotoo naa la Mouhamadul Fadil nag Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Abdoul Khadir ak am la yow kooku la ñuy fontoo tey kon li li ci taxawaayu jullit bi rawatina ku yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne moom la waajo ne woon dama dégg ne nga bëgg guro mu ne lu fiy guro na génn kër gi luñ may askale ne moom la bëgg loolu yonent bi sallallahu loolu du lu wér yonent bi rek laa bëgg sëñ Modou Xarifa ñang nee na defar na defar na kat café wala ataaya def ca suukar di ko di ko jàmb ba muy liddiku nee ma wax ci samam xel ne bajjo ak bëgg suukar mu ne ko Modou Xari mu ne ko Mbàkke mu ne ko dara safatut ci man lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu tey ñuy caricaturé lan moo ci taxawaayub jullit lan moo ci taxawaayub nag ku yaakaar si Ahmadou Bamba mooy boycotté mbooleem lu France am waa ji sëñ bi lëngoo neex na waaye ko demee mu dem ko bàyyi mu dem ak fi ne buñ jàppee ne dañuy dund kenn nuy dundul ko dul yàlla rek nu ngi xeeb suñu bopp Serigne Touba bi muy défendre lii di ko xeex gënoon na fay wéet moom képp kot rek dong nu génn ko ci dëkkam maanaam teqale ko ku njabootam yóbbu ko juróom-ñaari at yu manqué tuuti mu leen di wax ni yonent salaa salaam lay liggéeyal te ku dal ci kawam ci sa kaw bi mu demee nag ba nga xam ne léegi nooy na neex na bëri na ñun ñi li ñu a def mooy bu buñ jàpp ne kenn nanu yor ku sëñ Tuba yàlla ak sëñ Tuba moo nu yor moo nuy sagal ñoo ñuy dundal kon nañ boycotté mbooleem lu France am ba baa muy dellu ginnaaw ci li mu def ndax lu ñaaw la am julit ñëpp ci àdduna bépp a nga koy ñaawlu waa kër sëñ Tuubaa gépp a ngi koy ñaaw looloo waral jataay bii sang yu baax yi toog mbooleem lu France am rek ku dib taalib bu yaakaar sëñ Tuubaa boy ko côté wasalaamaaleykum wa rahmatullah man nga ni ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sidna Omar dafa wax ni nahnu qawmun a'azzana allahu bil islam fa isa talamna al issata bi xayrihi kunna adalla xawm nee na ñun ñoo gënoon a torox ci àddina suñu borom terale nu lislaam saa soo xamee ni wan nañ ginnaaw li ñu yàlla terale kon ñu dellu di askan wa gën a toro te wa ma aataakum rasulu fa xusuuhu wa ma nahaakum anhu suñ borom dafa wax ni ci alxuraan lépp lu leen yonent bi andil na ngeen ko jàpp lu mu leen indilul na ngeen ca maandu te it wax ni li fi yëg yéen a ngi digle lu baax di tere lu bon yéen a ngën gi xeet wi waaye nag saa su ngeen noppee digle lu baax noppee tere lu bon ne leen wóor ni ñëpp a leen gën kuntum xayra ummatin uxrajat linnaasi ta'muruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkar maanaam al xukmu taduuru wa adama saa suñ noppee digle lu baax noppee tere lu bon rek ñoo yées ñëpp kon xuk suñ diglewu suñ diglewu suñ terewul lu bon rek xukmu day nekk marfo day dégagé wu maanaam dañuy yées ñëpp kon lii nga xam ni moo xew tey jii nga ni euh, am na benn waykat saahir boo xam ni Kaab dafa ŋaññoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni képp ko gis na ko rey ba mu muy wër ci mbedd madinatul munawara sahaaba yi di ko wër ba mujj def xasi xasida googu baanat sohaadun fa xalbil yowma matbulu mu tayyamun israha lam yufda makbulu wa ma sohaadun xadaatul bayni israhalu illa aganun xadidu tarfi makhulu ba fi mu àggee ci inna rasula la la sayfun yustadaa u bihi muhannadun min suyufillaahi maslul nee na yonent bi képp ku ko laal rek da nga xam ne yaa ngi mooma ndax dañ lay tëkku doo baax le ci lenn kon kii nga xam ni mooy ŋañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam lenn rek lañ ko mën a def mu yëg ko ndax ñun amuñu kattan amuñu doole mooy def ko na ko iranien yi defoon ndax bi ñuy def ay accord ci wàllu économie bi protocole Iran bi accès dal ni ñu teg euh, seen plate sàngara yi dañoo wax ni ñun ay jullit lañ duñ jëfandikoo sàngara protocole Macron mii bi mu accès dañoo wax ni euh, loolu du mën a nekk duñ ko fi mën a jëlee ñoom ñu daan ni kon nañ nañ nañ nañ dagg mboolem accords yi nga xam ne bëggoon nañ ko ndax xam nañ ni seen intérêt moo ci ne ñoom ñoom dañoo libre ci am mën a jëfandikoo am nañ mën a mën nañoo dem ak seen bopp ba tax na ñoom ñu areeraat ca lañ ne kon daan ni kon nañ fi jëlee sàngara si ñu sëy ne seen i kon nag ñoom alal lañuy ñuy jaamu mooy seen yàlla seen alal mboolem ji fi nekk ci réew mii muy Air France ak Total ak Auchan ak mboolem seen i koom-koom yu nekk ci réew mi képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah association Xuddaamul Xadim ñi ngi sàkku ci yow ngeen wan leen ginnaaw ndax ñoo noonu dong lañ mën a def lépp lu ñuy xeex yàlla dimbali ñu ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aoudu billahi min ñoo ngi leen di nuyoo fii ci ëtt bu sell ëtt bu màgg ëtt boo xamee ni mi ngi bokk ci ëtt cheikhul xadimi al maqarul asna tur wu am solo woo xamee ni eh, jar na dëkk fi ndax tur wi jóge ci kilifa gu màgg cheikh saalihu mbakke ñëw ci cheikh abdul ahad jaar eh, ci sëriñ xamsatu mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di jàmbaar joo xamee ni sëñ bi rek ko ñor ay yëngatoom ak dalam lépp man la ma ci xam mooy sëriñ bi barki dem ma am tali bu ma toogal muy wax ak Saalihu Mbacké naan ko ko bëkkalul bàyyi yaa ko gën eh, bàyyi ndax eh, sa waajur fu muy yëngutoori mbaa ñu dégg kàddoom rek ci mis moo tax waaye mu feggam ak rakkam léppam sëriñ eh, Sidi Ahmed Mbacké Euh, moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacke xayartu kenn ku nekk xam moom it xam-xamam yéeneem pëstéefam taxawaayam itam ci yoon wi ñuy euh, di yëkkati kàddu ci seen ndigal ñoom ñi ñi nga xamee ni ñoom ñoo jiite daaira wala jamaaya wala association bi nga xamee ni moo tudd xuddaamul xaddiim xuddaamul xaddiim nag ci lii lañ koy séentoo mooy liggéeyal cheikhul xaddiim waaye boo ne cheikhul xadim euh, tey nag dañoo laal jëw jëwriñam ja ki nga xamee ni mooy ki gën a màgg lépp gën a màgg ñëpp di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy sëriñub cheikhul xadim euh, sëriñub cheikhul xadim bi nga xamee ni ci la doon wax naan wasilati wa matlabi wa munyati daani wa jannati wa junnati wa buxyati sayidina muhammadin afdali man mada wa man yaati wa man fida zaman kooku eh, la cheikhul xadim waxoon ne ko juttu lahu lyawma bi ruuxi walbadan wa walidi wa walidaya fi laalam kooku moom la waxoon daa ne xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saacati ila xululi ramsi kooku ku màgg kooku yi ku tedd kooku nga xamee ni lépp lu jag tey mooma tey bundee dund nii mooma ay noon yoo xamee ni xamuñu dara di dox ak seeni bakkan ak seeni caaxaan daal dal ci ku mel ni rasulullahi sallallahu alayhi kooku nag eh, bu dalee ci moom daayira bii dana jóg di xuddaamul xadiim waaye dana ko jóg ànd koog bépp kuréel boo xamee ni mi ngi mel ni moom di dox li muy dox ci biir Touba waaye ci biir senegal ak ci biir àdduna bépp nga xamee ni ñooñu défendre l'islam moo leen ñor euh, ba tax na ñoo ngi woote di yëgle itam ñëpp ne lii kat ñu def am njaaxum la lii ñuy def lu rëy la loo xame ni ñëpp ci war a jóg ñépp àndandoo bokk ndey bokk baay xeexal lislaam xeexal rasulullahi ndax kooku kat teraanga jii ñu am mooma ndax la xadd manna allahu ala al muminina isbaata fihim rasula ci ñi ngi tolloon ci <clears throat> euh, ci teraanga ji nga xamee ni suñ borom defal nañu ko ñun ñi nga xamee ni ñooy njabootuk lislaam ci bi yàlla yónnee ki gën ci mbindeef yépp muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daal ñuy wax daane laqad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasula muy yenent boo xamee ni euh, dañoo ëmbal yërmande waaye itam sun borom digal nañu kooku mooy ki nga xamee ni képp ku ko waggar te fonk ko gëm ko topp ko euh, say mbir yëpp dana jage ci moom jëm ci man kon nag rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ñoo ko bokk mboolem jullit yépp ba tax na fépp foo xamee ni ab jullit ma nga fa moo xamee ni fii ci biir Touba ak ci biir réew mi ak ci bitim réew ñépp dañoo war a àndandoo nekk benn loxo boole seen doole lépp fas yéenee taxawal yonent bi sallallahu alayhi wa bañ cee am benn complex benn ragal wala dara ñu royee ko ci suñ jàmbaar ja Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, ca nam ko waxee ci maana man de su ma ragalee damaa xamul man may kan ndax sama jur dañ koo fexee la fexeel ba mënuñu dara ci moom ci laa soog a gane àdduna kon nag man su ma dee ab ragal mbaa may hésité ci lenn kon man xamatoo man Abdoul Ahad may kan faa itam ñun murit yëpp ci lañ dugg sëriñ tubaa dañ koo fexeel fexeel ba mënuñu dara ci moom hmm. daal di dellusiwaat soog a jébbalu nekk taalibe sëñ Bamba mu nangul sunu taalibe hmm. te kooku nag kim teg ci kanamam mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di gën a uh, foor ci moom hmm. kon nag képp koo xamee ni ab murit la képp koo xamee ni ab jurit la lii war na koo naqarlu taxaw lii nga xamee ni noon bu mag boo bii nekk jiite France ñu naan ko Macron xuma wayam kuroon wayam kurullahu waa attana boppam sax incha allah lii muy fexe du dem comme que ñoom ñoo mën a dajee ñoom ñi nga xam ay noon lañ julit yi nañu dajaloo nekk benn te ñu bàyyi seen naayif gi nekke nooy bopp ba ñu dugg seen biir di leen jaxase ñoom ñëpp dañoo war a nekk benn ndax yàlla jàngal nañu ko wa atasimu bi xablillahi jamia wala tafarraqu kon ñun ñëpp benn lañu war a doon lépp ñoo ko bokk diine ji lépp lu ñuy xeex lépp luy lislaam kon euh, ñoo ko moom kon dañoo war a ànd nekk benn taxaw bu baax a baax lii nag képp koo xam ab judit la képp koo xamee ni day woote ne rasulullahi mooy sëb sëriñ ba bëgg nga ko ci lenn sa alal sa bakkan sa dara waru ko fekkee hmm. jóg nag fas yéene taxaw défendre lépp hmm. ba tax na ñoo ngi woo hmm. mboolem association yi moo xam fii ci biir dëkk bi lay di Touba wala biti dëkk bi di Sénégal ak fu mu mën a nekk ci àdduna bi ak mboolem kuy jullit ni ko mbooleem réew yëpp naqarloo fii la gën a jaadoo fii ci kër Cheikhul Khadim moom mooy Khadimul Moustapha Khadimul Moustapha nag kenn dong laa gis mu tudd ko mbaa gën caa siiw muy Serigne Touba mii kon nag lépp lu ñu wax ca sangam boobee mm-hmm. ñun war nañoo jaay suñ lépp suñ dara waru ko fekkee mm-hmm. jóg nag fa yéene saafara loolu mm-hmm. comme nag euh, euh, euh, ci jëf lañ ko war a saafara mbaa ci wax mbaa ci yéene benn bu nekk danañ cee def suñ kemt lay kattan lii nga xamee ne nag moom la Serigne Saliou wax ci niñ mën a xeexee lépp loo xamee ni France ma ca di ab produit wam mbaa lu mën a doon comme ni ko nit ñuy defee mm-hmm. loolu fii la war a njëkk ñu taxaw ca mm-hmm. kon nag lii mooy déclaration bi nga xamee ni mm-hmm. moom la xuddaamul xaddiim bi nga xam ne liggéeyal cheikhul xaddiim liggéeyal rasulullah ak lislaam moo ko tax a jóg lii la jógoon doon ko annoncé di naqar lu baax a baax ndax lépp lu dal ci yonente bi ñun waruñu ci xaar kenn te ñëpp dañu ci séentu loolu moo taxoon ñu woote woon daan ni war nañoo def benn annonce benn boo xamee ni nag day jëm ci képp koo xamee ni ŋàññi na surtout Macron mi nga xamee ni jóg na caricature rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam suñu sang te ñoom bu ñu bëggoon jàmm man mënoon nañoo jël seen maam mbaa ñu jël seen bàyyi caricature ko hmm. ah benn problème du ci am hmm. waaye sangub jàmbur hmm. kilifa jàmbur sëriñub jàmbur nga jël di ko caricature ak melokaan bon woo xamee ni ah eh, eh, na dayo kooku nag foofu la tooñ mën a nekk te itam ah tooñ moom ku ko def fa fawu suñ borom dana la fayul moom waaw kon nag kàddu yaa ngi noonu lépp lu ci jub loolu lañ bëggoon a wax lu ci dëng nag ñu xam ni nii ci matadi doomu adama la di jégalu ñépp di sant ñëpp di wax wa aleykum salaam wa taala wa di jiital ci nu bi sëriñ Muntaxa Mbàkke alxalifatu am di taifa al muridiyya ataala allahu baqaahu di yi sëriñ Amsa mi nga xam ne moo waral jataay bi di ko ndokkeel bu baax ci jataay bi mu wote di nuyu mboolem jamxiya nga xam ne ñooy ñooy xoddaamul xadim di sant bu baax a baax ci seen jataay bi ci am bu baax baax boo xam ne ñu fan yii yëpp defoon caricature boobu am benn caceen boo xam ne ñëw sàkk fu muy génne dajee moom ma def ko loolu ko def muy loo xam moo tax jullit yëpp waaye mbokkum julit moo xam ne du naar sax mu volontaire dem fekk wax na ne sax ki ko ko wan da koo fay waaye xolam boobu la jam moo tax ma def loolee yaakaar ne foofa lay yem ki nga xam ne mooy njiitu réewum France di Macron ñu yaakaar ne koy ñaawlu ci def moom mu rafetlu lam def xam ne lu lu war a am la dañ ko war di caricature dañ ko war def ci dañ ko war def sallallahu alayhi wa loolu nag ñu déglu àdduna nag waaye moom it Erdogan taxaw ci taxawaay bu rafet mboolem réew yi naa yaa ngi si waaye ñëpp dañ ne miig waaye mu dal ci kawam xam leen ne nag kii sax jot waxal na ab daf daa xel mi daa matut te wax na dëgg itam nag ndax lu toll ni di nekk jullit ci àdduna nga ne ñoom dana am crise wax leen lu wax ñaaw ko koy wax xam naa ne sam xel matul sa fim xam naa ne sam xel matul ndax fi mu ne rëccul ko lool waaw jural na ko loo xam ne si jàpputoon ne da egg foofu kon nag boobu ba tey ñu ngi dégg yu bari di def ay réaction di ko ñaawlu ñii di ko condamné ñii da ko boycotté fa nga xam ne fa la yonent bi sallallahu nekk sax moom condamné nañ ko waaye ñoom neen duñ ekk duñ egg si boycotté nañ loolu lu doy waar waaye nag loolu mooy mbirum jikkoy naar kon nag loolu amee ci nga xam ne mooy jóorinam Seexul Xadiim réew mi mu nekk loolu am fa ñu dégg ci dëkk bi ay activistes yoo xam ne ñu ngi ci yëngu boobu ba tey dégg déggun woon lu bokk ci yoon yi yëngu si loolu bu ngeen wootee lii daañu ci sonq dara ci sedd baax jàpp nañ ne Serigne Touba xalam dara ci sedd baax ndax lislaam kat fu ko masaa jame Serigne bi moo ci taxaw wala njabootam Arabie Saoudite wegee ba ci jafe-jafe ak xat-xat gis ngeen lettre ñu bindoon sëñ bi ngir bëgg mu dimbal leen ci kon nag ngeen taxawee taxawaay bi sëriñ bi xolam dana sedd ci lii ngeen jëf ndax sëriñ bi moom loolu wax rek dami wa ahli wa awlaadi fila ulawi léppam da koo def jot yonent bi kon nag ñu ñëpp ci njot googu lañ dugg kon nag war na noo jaral suñuy bakkan suñuy deret kon nag ñu ngi leen di ndokkee ci lii ngeen def bu baax a baax imaam xob yi mu ngi dégg <coughs> jamono yi bi mu defee sawar islamiya bi xam nga booba Sénégal moom Irak la sëñ Abdou Khadir day ko xam ne dara dul bu baax booba nag bu set rajo bi rek ne xamay ne rey na téeméer wala ñaar téeméer wala ñett téeméer mm-hmm. tax sëñ Abdou Khadir mer ko ci loolu nag waaw ah, ab jullit mm-hmm. ba mu def mm-hmm. ba imaam Khomeini def fatwa ba ne koo gis ko naa la jox nangam mi daar kenn baax la da nga ko wax <laughs> loolu moo waral bi mu génnee adduna mu wax jumaa ji naan ko ñaanal xarba googu ma defoon rek saay saay boobu ma defoon mm-hmm. kon nag mm-hmm, lool lool foofu la ab jullit war a nekk mm-hmm. kon nag lii war naa metti kuy ab war na laa naqari loo ci man itam ci feeñal naqar war nga ko def occidentaux yi nag ñoom ñëpp a yem moom Macron day dof feeñal li nekk ci xoom waaye ñëpp a yem noonu lañ lislaam noonu lañ koy xeexe te danoo egg ci jafar fi mu sax ndax seen problème mooy islam day yokk ci seen réew bu baax a baax mhm. France ñi nga naan si nangamat mhm. julli yooyu danañ jël mesure ci réew mi looloo tax su ne ñu tiit nag mhm. di wax lu lu lu dafa nekk itam fa dëkk mënu leen dara ndax ceeceñ ba mu rëy waaji moom français la du bu doon am naar sax wala africain ñu ñu wax la leen kon nag loolu mooy seen jafe-jafe kon nag mm, nii ngeen def ñu ngi leen ciy gërëm bu baax a baax donte nag li leen malal bëriwut waaye ak Mahatma Gandhi ba ba leen fa ba anglais sonal leen ci manul leen dara moom dana daa xëy rek ne lu jógee Angleterre nag ko bàyyi noonu rek la xeexal ñoom génn wut jeesi génn wut bal génn fetal ci loo jógee Angleterre rek ne ko rek daal daal dem ci réew moom ñuy bay witeen mu koy sol digg ñëpp ñuy sol loola loolu ci la def ba am indépendance ci français kon nag ñun anam gi ma a bëri ñun dal ci ci wet googu mooy lu mel noonu rek ndax ñoom ñoo ëpp doole ci wet yëpp nag waaye nag buñ sañoon tam nag réew mi nga xam ne réewum Sénégal te quatre-vingt-quinze pour cent la ñuy wax ne julli waaye ëpp na ko au moins bokk condamnation am am ci boo xam ne day officiel ci état bi te booba tey koy déglu ci dégguñ ko loolu nag danañ ko sàkk bu baax ci ñi nga xam ne ñooy jiite dëkk bi ndax lépp lu del yonent bi sala lu wax ci yonent bi sala yonent bi sala dara du ko wàññi dara la bi yëpp du muslil musa muhammad seren waa jaanan fi bera yastamadi bane ba ci mu xul xadama foofa kulli raxaba kawe na ñëpp te kenn mënu ko ayibal tam nag loo ko wax rek loolu daa nekk ci yow waaye moom ñëw ci moom kon nag kon nag kenn du ko wàññi dara kenn du ko wax lu lu lu nekk lu lu baax rek mooy kon nag waaye teewul nag kuy ab jullit nag buñ ko waxee dara war nga war nga ko naqarlu naqarlu googu nag la ca gën a yow mooy nga condamné ko xam ne loolu jubut ci yow ka ko def itam nga nga wax ko nag li nga def du yoon loolu nag war na jullit yëpp war na réew yëpp kon nag ñu ngi leen nokkal yéen ñëpp di leen sant ci jëf yéen jëf sun xol sedd na ci baax ñu ngi sant am sax nii rek la sëriñ Tuubaa ginnaaw noonu ko waxee am na loo xam ne kilifa mënu ko defal boppam seet du ko joxe ndigal waaye nag na day leer na lii bu ko déggee xolam dana sedd te ko bëgg sëriñ Tuubaa itam xol dana sedd ci loolu kon nag ñu ngi leen di gërëm bu baax yéen ñi nga xam ne yéen yor liggéey bii nag ngeen gën cee taxaw bu baax a baax ndax agression yi bari na wax ju ñaaw ji bari na reewande gi bari na surtout ci réseaux yi te loolu lépp nag ginnaaw ñun amuñu ko nu ko fajal mhm. am na loo xam ne ñoo koy jëm a fajal suñu bopp mhm. jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu